asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di ziare seen mbokk Mouhamadou Amine Sall euh, ñi ñëw ak ci vidéo bii ñu leen waxoon moom bii ñu leen dugaloon te mbokk mii di ci wax ci wàllu tamxarit ñaawal ko lool ñàkk ci teggin mag ñi nga xam si ñoo ko jiitu maanaam euh, ñàkk na ci teggin mag ñi ko jiitu rawatina ñi nga xam si ñoom lañ ñoom lañ leen waxoon daaw ni sëñ Suwaybu bu Mbàkke ak sëriñ Abbas lañ bindoon ci tamxarit lépp ñàkk na leen teggin wax ni loolu lu araam la lu wuuteeg sunna la maanaam daal daanaka takfir na leen euh, ñàkk teggin googu nag du tax ñun ñu ñàkkee ko teggin parce que foog ñu jox ko cëram euh, boroom xam-xam la kenn du nit jaahil la boroom xam-xam la kenn du nit amul yar amul teggin waaye xam-xam bi réer na ko ci wax ci wax ji yaram ak teggin ga nga xamni si mom lañ ko xamé manam xagn nako ko chou ay bu mbacké xagn nako ko abbas xagn nako tim ñu mel ne ñom waye nak ñun duñ ko ñaké teggin mukk ndax yu bare parce que nit dafa bare ay doom ma ngi fi ñu seq ñom teranga ay talibé ma ngi fi ñu seq ñom teranga ko wax baye mu wax sa baye ko wax serigne mu wax sa serigne kon nak dañuy dañuy wax ci yar ak teggin leeralal lii mu wax ni njuumte la sañ nañu wax ni kilifa gi dafa juum di préparer ñun ñun tam ñu ni ñi yéen seen papa dafa juum wala seen sëriñu juum parce que loolu d'accord nañ ci wax ji bi biñ ko taaraaree dañ ko taaraar dara desu ci biñ ko taaraaree léegi nag nañ dégloo xel nañ ko diglee xel te teeylu ko maa ngi ñaan ñu dimbali ñu rek dégloo xel li ma wax nii budul noonu dañu defar ay audio weddi ma ni ma yow waxoo fi dara euh, kilifa gi nee na bisu tam xarit bis bu màgg la ndax ci la yàlla nangule woon maam aadama tuubam ka ci la yàlla teerale woon gaalu yonent yàlla noox ka ci la yàlla notale woon Muusa Firawna ci la taxoon ba Muusa not Firawna labal ko ca géeju xulsum nee na kon tamxarit lu màgg la ndax lii léegi lan la ko bonale lan la bonale tamxarit parce que ci la ñu posone woon xasan surtout yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barey ko loolu la ko bonale nee na tamxarit lim ko bonale ba tey ci la ñu euh, bareyoon xuseenu ci Karbala ci la ñu ko naxoon barey ko léegi nag laylatul qadr buñ màbbaloon kaaba gi bisu leelatu xadar day tax ñu bañ a màggal màggal ci leelatu xadar parce que dañ cee màbbal kaaba gi bu ñu faagaagaloon jullit ñi bisu leelatu xadar ñi faagaagal ci ab dëkku lëmm ci ay jullit day tax ñu ni kon bàyyi nañ leelatu xadar kenn dootu kenn dootu ko màggal parce que dañ cee faagaagal ay jullit waaw tabaski tabaski bu fekkoon ne dañ ci faagaagal rey ci ay jullit ndax dañ naa waruñu tabaski parce que tabaski dañ cee rey ay jullit yow ma arafa bu ñu fa fekkoon jullit yëpp maar dem si faagaagal leen day tax ñun yow yow ma arafa baaxatul parce que dañ ci rey ay jullit parce que mooy ni mu waxee moom d'accord na ni bisu tamxarit lim lim baaxale bisu tamxarit moo gën a rëy lim ko bonale parce que lim baaxal bisu tamxarit mooy ci la yàlla jéggale maam Aadama ci la yàlla teeral gaanu yonent yàlla Nuux ga ci la yàlla notale Moussa mu na Firawna lan la ko bonale parce que ci la ñu rey Xasan posone ko ci waaw ce comme lañ ko ñun dañu ni ñun dañu ni xasan euh, comme lañ koo posone ca cerey tamxarit ya reeru tamxarit ya ñun nag nañ def safaan bi moom dañoo togg reeru tamxarit poson posone ko jox ko mu lekk dee ñun nag ñuy togg reeru tamxarit basi salté ba mu neex indi ay safal togg ay soos wut ay boisson na mu gën a rafete gën koo jekke gën koo neexe nañ ñu defe ko noonu jox nit yi ñu lekk kon dañoo jëloon ay ñam posone jox situ yonent bi ñu lekk dee ñu ni kon déedéet ni ñuy def mooy dañuy jël ñam togg reer tam xarit nañ ko posone woon ñu def safaan bi moo tax reeru tam xarit loo daan def ci nam gën a neex danga koy gën a neexal am na am na moddu cere yoo xam ne si ci tamxarit dong nga koy lekk am na moo moddu soos ganaar yoo xam ne si ci tamxarit képp nga koy lekk lan lañ ci jublu comme dañ cee posone woon surtout yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñun nañ war nañ def safaan bi toog ci ay ñam togg bam mu neex du am poson du am dara jullit ñi lekk ko ñin leen lekk leen lii kat parce que nañ daan toggee baas yi dañ koo toggin changé ko nañ daan togge soos dañ koo changé lu tax ngeen changé ko parce que bis bii kat dañ cee posone woon surtout yonent bi mu lekk dee ñun nañ togg lu neex nit ki lekk ko dund am vitamine nekk ci jàmmam aywa eh, jul ña dañ koo feetoo woon di ci tëgg ko di kontaan ñun ñuy wane sunu kontaan ni surtout yonent bañ ray tey jii bis bi ñu ko reyee woon ma nga ci aljanaam ma nga ci aljanaam parce que dañ ko boom kon dañuy feetu nekk gam nekk ci àjjana di bànneexu parce que sëtu yonent bi la sallallahu alayhi wa di ko jullit di ko jullite di jaamu yàlla ñu rey ko ci boom kon mandara gi ñu waxoon ku ci dee dem nga da ngay dem àjjana yëpp mandara daje ci moom kon nag war nañoo feetu di kontaan parce que sëtu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma nga ci àjjanaam di kontaan ci maamam lu tax mënuñu jël loolu eh, màggal gi ñuy màggal eh, guddi maanaam bis bi na cere yi déglu leen wax baax a baax nee na cere yi kontaan giñ ci kontaan yàpp yi baasi yépp xaraam yéena ko déggaloo si maanaam xaraam xaraam nag kenn rek moo war a araamal mu yàlla ci làmmiñu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mais moom nag nee na cere yi dafa araam yàpp yi dafa araam nag yi dafa araam loolu war naa indi dalil parce que nee na nee na tim lii yàgg na ko wax ci rajo bi kenn mosu koo indil dalil loolu nee yàgg na ko wax ci rajo bi léegi nag da ngeen déglu ma indil ko dalil boo xam ne si alquran moo wax ak dalil boo xam ne xadis yonent bi sallallahu wax ak dalil boo xam ne si sunuy mag yi nga xam ne si di kilifaam jiitu ko ci diine ji jiitu ko ci xam-xam bi lan lañ wax nee na yooyu yiñ ci wax yëpp dara du ci sunna euh, ñi wax day xaw ma ñëpp mais sëñ Abbas daal daaw wax naa leen li sëñ Abbas wax ak sëñ Chouaïbou du ma ni sëñ Abbas nee na sëñ Chouaïbou nee na parce que benn wax bi la wóor na ma ni kenn copié wul sa moroom kenn kee nga ca Louga di di taalif kee nekk ca Touba di taalif seen bind yi nekk benn sëñ Abbas ak sëñ Chouaïbou nee nañ bésu tam xarit sopp nañ ko ci woor waaw lan mooy seen dalil mooy yonent bi sallallahu alayhi maanaam am na ñaari dalil benn dalil bi mooy julli ak wooru gàtt nga sunna la naafila sunna la ay Suhaybu ak sëñ Abbas nee nañu sopp nañ ko ci jokk mbokk jokk mbokk farata la yàllaa ko digle nee nañ sopp nañ ko ci seeti borom xam-xam seeti ku ci yenn hadis la yenn sala sala moo ko est-ce que loolu est-ce que loolu du na sopp nañ ko ci tusngalu est-ce que du du sunna parce que buñ loolu buñ bëggoon wax ba indi bi nag ñu indi hadis bi te yaakaar naa defoon nañ ko daañu seet ojo bi maanaam day nekk ci ay audio yu bare sëñ Chouaïbou ak sëñ Abbas nee nañ sopp nañ ku ci raay bopp jëriñ sëñ Abbas ak sëñ Suwaay bu neen sopp nañ ko ci sarxe sopp nañ ko ci sarxe sëñ ak sëñ Suwaay bu waxuma ñoom ñaar képp de parce que ñoom ñaar laaj gis ñaari bind yi nekk benn ñeneen wax nañ sëriñ si Abbas ak sëñ Suwaay bu nee nañ sopp nañ bisu tam xarit ku ci lelli weyam est-ce que loolu du sunna sopp nañ ku ci jàng xul wallahu ahad est-ce que du sunna yéen bi sallallahu alayhi wasallam waxu ko nee na sopp nañ ko ci yaatalal njabootam waaw léegi yii ana lan moo ci génn sunna benn bu ci nekk xadis wàcc na ci xadis yu wér yoo xam ne si moom dëggal na xadis yooya kon lim wax ni xaram loolu dana ko layef suñu borom tabaaraka wa taala parce que kan moo war a araamal ku dul yàlla aywa euh, lim wax ni du sunna yéen julli woor siyaare borom xam-xam seeti ku fekk seeti ku feebar raay bopp jirim sarxe yaatal njaboot jàng qul huwallahu ahad sangu tusngalu ñu ànd lu ci wuteeg sunna te ñoom lii lañ digle te nee na loolu loolu lépp dafa xaraam euh, lim ni du sunnatim wuute na ceeg alquran wuute na ceeg yonente bi sallallahu alayhi wasallam yonente bi dafa ni man sanna sunnatan xasanatan fa lahu ajruha وأجر من عمل بها إلى يوم إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة نيانا كيب كسوس سنة سرفة كيف كسوس سنة سرفة دانا أم قيا باي سوسغا أكيب كونف كيب كسوس سنة سبون دانا أم بكار ديفغا أكيب كونف ñoom ñii nag pour daw pour pour bëgg a euh, firi xalif yi na leen neex dañ ñi man sann sann fii dekkal lay firi ku dundal bu boobaa nag kon ñoom dañ ñi sunna ñaar la dafa am sunna su baax ak sunna su bon nee nañ boo dekkalee boo dundalee sunna su baax da ci am tuyaaba ak képp ko def boo dundalee sunna su bon da ci am bàkkaar ak képp ko def ñun de loolu ñemewuñ ko wax sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn sunna la yonent bi nee na képp ku sunnaal sunna su baax kon indi léegi nag sunna su baax lan mooy sunna su baax mooy sunna soo xam ne sii bu ñu ko diree bu ñu ko diree mu daal di tabbi ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi lan mooy sunna su bon mooy sunna soo xam ne boo ko diree du de du dem ci alquran du dem ci xadis yonent bi léegi lii ñoom seen choix bu wax nañ ko diri sëñ Suwayb nee nañ nañu nañu nañu naafila ci weeru koo ci bisu tam xarit diril da ngay ne ba mujj mu ni mu daal dem ci yéen salaa salaam nee na nañu raay bopp jirim neen nañu sarxe boo ci jëriñ mu dem ci alxuraan dem ci sunna léegi nag gannaaw loolu lépp nag alxuraan moo wax jàng leen ay alxuraan bi ngeen yóbbul ko ko alxuraan moo ni laa xayra fii نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس متكني ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما الآية القرآن كي لا ينكو ما نم في في فرنسا ما نم دفكو أي كي برتسارك كي ورسبي بس كل آية بيمهم يلا دفني waxal yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax leen ni seen déeyante gi ñuy déeyante seen kaay ma wax la yu bari yi seen seen kaay leen ma conférence leen neena duma leen ko nangul di ko jàppi lu baax lu dul ka ngay déeyanteel ak nga di ko digal da nga digal ñu ko na nga wala boog nga digal ko maaruuf lan mooy maaruuf nga digal ko lu baax maaruuf nga digal mooy ak njekk julli maaruuf la maanaam maye deret maaruuf la جوه نيت كل ملاك معروف له نافله معروفه سيتك فيبر معروف له مي معروف موي لب لو خامني سي بوكو ديفي كوكو فيكني اسكي رك معروفه يالا نك ني كيب كو خامني سي ديغل نن لا معروف ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما نينا آه، كيفا نينا بوب لي مين كي واخ سي راديو بي كين اندي لوكو لا يوبول لين كو واخ جي yàlla ñëwee ñi leen ko yàlla nee na képp ku leen digal lu baax bu ngeen ko defee ngir sàkku ci sama ngërëm na ngeen xam ni man maa leen di fay ka ko digal du leen fay mënu leen a fay waaye bu amee ku leen digal ak njekk bu amee ku leen ko digal képp ku ko def man maa lay fay laa xayra fi kafi kathirin min najwaahum illa man amara bi sadaqa lu dul koo xam ni dafa digle sarxe ah sëñ Abbas in shuaib bu dañoo digg fii na bis tam xam ne ngeen sarxe aw maarufin wala mu digal ak digle ak njekk lu baax léegi mu des lenn waaw lu tax ñu taamu bisu tam xarit dañ naan leen di ñiw ñu tam xarit nga koy def doo ko def beneen bis de dañu ni in azuma alzamaanu wal makaanu azumati taatu wal isyaanu bu place bi màggee jaamu fa yàlla day rëy waaye mooy fa yàlla day rëy bu waxtu wi manque euh, bu jamono ji màggee jaamu fa yàlla day rëy mooy fa yàlla dafay rëy waaw moom moom nee na tamxarit bis bu màgg moo tax ñoom sëñ Suaybu ak sëñ Abbas jël yii digal ko digal ko taalibe ñoo tax mu fekk ndigal ya nga xam ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko digle te sàkk yonent bi jagleelu ko benn bis bàyyi ba ca des waaye nag terewu ko ci benn bis comme jagleelu ko ci benn bis terewu ko ci benn bis kon ñoom ñu taamu nañ bis yooyu yooyu yonent bi digle te jagleelu ko bis taamu nañ ngeen jël ko di ko def ci bis bii nga xam ne si bu kilifa gii nee na bis bu baax la bu màgg ndax ci la yàlla jéggale woon maam Adama waaw nañ ko def ndax bis boobee mën na am bis boobu la yàlla taamu di ci jéggal mam Adama nee nañ ci la gaalu yonent yàlla noox ga euh, teeroon te gaalu mucc la nañ ko def ngir gaat ga mucc googu ca la yàlla notale woon na notale woon Moussa mu not na waaye ñun kay kon kay nañ def yii ngir yàlla notal ñu sunu noon yi mais man comprendre woon lu mu bëgg wax fii léegi daal liñ leen di wax mooy euh, borom vidéo bi nee na loolu dafa araam araam moom yàlla na ko laaj lu tax mu loolu dafa araam nee na bisu tam xarit li tax mu contre ko mooy dañ cee posone woon xasan mais ñun comme dañoo togg ay reeru tam xarit posé na ci sëtu yonent bi ñun nañ wuuteeg loolu nañ ni daal ñun bisu tey bii lu yéen lu tax ngeen togg reer tamxarit ñu ne ñun dañ koy togg parce que euh, lu tax ngeen ci def safal yi lu tax ngeen def base salté lu tax ngeen di jënd ay meew lu tax ngeen di jënd ay boisson lu tax ngeen di ko def ay ganaar lu tax ngeen di yàkkale dañ naan waaw parce que dañoo toggoon reeru tamxarit yàkkal ci sëtu yonent bi sallallahu alayhi def ca posan mu lekk de ñun nañ ko togg posan poson place poson ba ñu defee ko ay ay yu neex ay soos ay basi salté defar ba mu neex joxe ñu lekk dund nekk ci jàmm waaw lu tax ngeen di kontaan waaw parce que surtout yonent bi lañ lay bis bi wóor nañ ñi bis bii ma nga ci aljana di ko di di di kontaan parce que Abu Lahab dañ ñi altine kenn bu nekk kenn du ko mbugal ndax dafa kontaanoon ca bis ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam juddoo moo tax fa mu nekk kenn du ko la ti léegi nag ñun tam bu bisu tam xaritee dañaan ay waay xasan day ak xuseyni ña nga ca seen kanamu maam di kontaan ndax bis naka tey lañ leen rayoon kon di leen kontaanle ci seen ray googu ñu leen rayoon ndax yonent bi sallallahu alayhi moo wax ni ñi nga xam ne dañ leen a rey ci jihaad dañuy ñaan yàlla bëggoon a dellu siwaat àddina pour ñu rey leen ci jihaad ñu demaat buñ demaatee dañuy ñaanaat dellu siwaat ñu rey leen ci jihaad ndax mbégte ga nga xam si moom lañu am foofu kon bu mu wax ni amuñu lay léegi daal cere cere jañ ji nga xam moom lañ posone woon Xuseyn ñu lañ koy remplacer cere joo xam si cere ba salté moom lañ remplacer jo Xuseyn yi léegi nag ya nga xam ne si moom lañ cay def mooy yàlla ga nañ tere ni mooy yàlla gi baax mais loo xam si mag ñee ko digal digle yow nga am nga am nga yow ngay boroom xam-xam daal di réeral sa xam-xam yow ngay borom yar ak teggin ñu xam la ci sa yar ga teggin gi yëpp nga teggile ko ku mel ne Serigne Abbas teggile ko ku mel ne Serigne Souhaïbou Mbacké te loolu yar ak teggin nga leen teggil maa euh, ñàkk leen teggin ñàkk leen ko yar njabootu sëñ sëñ Souhaïbou ak njabootu sëñ Abbas duñu la ko mës a ñàkk ci àddina bi parce que liñ leen yare mooy euh, ñi nga xam si euh, dañoo bejjaaw ci islam nañu am bu ñu leen jox te moom borom xam-xam la kenn du wuti xam-xam borom yarak teggin la kenn du ko weddi mi xam-xam ba dafa am feneen fu mu ko jëmee yar teggin ga seytaane moo ko moo ko walbati tey jii mu mu sore la ko ñi nga xam si li ñu laaj mooy ñu waggat leen jox leen cër jox leen yar jox leen teggin ca nee loolu am woon gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa loolu ay fen la nee na loolu maanaam yonent bi waxu ci benn xadis xam nga loolu euh, kenn xamul kenn xamul lu ko mën a tuddee Eh, léegi nag maa koy yóbbante xadiis yonent bi nee na képp ko sos sunna su rafet dana am tuyaaba ja ak tuyaaba yu koy def ñu ngi koy xamal nag yonent bi bàyyi foon alquran ju ñu tomb sallallahu alayhi wa sallam yonent bi bàyyi foon alquran ju ñu maas bàyyi foon alquran ju ñu dajale déedéet mosu fee bàyyi loolu te xool leen nag tomb alquran ñi mu amee maanaa dajale alquran ñi mu amee maanaa nga xam ni bëgguma guddal audio bi bu ko defee di leen di leen ci sonal léegi nag euh, li ñuy tëjee wax ji mooy comme yonent bi sallallahu alayhi waxoon na ni bis bu ma ko fekkee te woor juróom-ñeenteel bi ak fukkeel bi kon yonent bi d'accord na ci woor fukkeel bi waaye lim ci jublu mooy nañu wuuteeg yahud yi ni ñuy màggale bis bi nañ wuuteeg yahud yi wuute nañu ak ñoom fukk yi sëñ sëñ Abbas digle ak sëñ Suwaay bi yow du ci def benn ni ñuy jullee duñ ko jullee ni ñuy woore duñ ko woore ñoom ni ñuy sarxee duñ ko sarxee ni ñuy jokki mbokk duñ ko jokki mbokk yi ñuy def wuute ñoom ci lépp moom nag euh, ni nga xam si noonu la tëje vidéo bi loolu laa bëgg ngeen déglu ko moom vidéo bi ñu ngi ko tëje mbooloo mu àndandoo di jàng salaatul faatihi loolu bu ci amee xadis fu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbooloo mi ñi dégg muy jàng salaatul fatih du gisu leen ko fenn waaye dañoo gis ni baax na yàlla moon ne inna allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi yaa ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima julli leen ci yonent bi léegi nag moom ànd na ànd naag mbooloo bu ngeen déggee dama leen koy tegal ngeen dégg ko moom lay tijji sama wax ji ni ñu àndandoo di euh, jàng salaatul fatih ca kaw loolu nañu wax lan moo ko wutaleeg lii sëñ Abbas digle ak sëñ Chouaïb. jóge na lu jege loolu xewut lu ci nekk suñu baaxut baaxut at mu nekk danaa ko baamtu ci laa koy wax ala nan benn borom xam bu ci tontu di indi am benn source parce que bidaa la baaxut. léegi nag ngeen dégg ni mu koy tëjee xool leen waxam bu mujj déglu leen waxam bu mujj. kon loolu moo di ashura ak tasura kon ñu jàng salaatul fatiha ñetti yoon ñu yëwee la اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح اي واي سبقنا صراط بالحق والهادي الى صراطك المستقيم على آله قدر والدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق وخاتم سبق الناصرة الحق ولا إلى صراطك المستقيم على آل قدر الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصرة الحق ولا إلى صراطك المستقيم على آله قدر الله العظيم سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام i waaye ndaw léegi nag loolu nag wax leen ma fan la nekk ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ànd ak saxaaba yi ñuy jàng salaatul fatih asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh